kii yi ñu suivre ci Leewtoo TV tey nag kii ma toogal moom mooy sama DC ah mën naa wax loolu Ibrahima Faye Beuz parce que la dalal baa rek mooy sa DC te moom ma dalal baa macha allah Beuz maa lay bëggee. maa ngi lay ziar bu baax am nga jàmm. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. baal ñu àq si julli baal leen leen àq baal leen ñu àq bu baax a baax yaa ngi may commencé dóor te demaguñu fenn. <laughs> yow kenn mënu la tooñ ma lay tooñ. mais mais mais Babacar ma lay ma jaal ma lay jaalee avant tout parce que maa ngi doon dégg ci talis laa ko déggee sax ci benn émission Walfadjri muy wax naqar bu dal sa kaw donc duñ def lu dul jaale la jaale la sa rakk jooju nga xamante ne ñàkk nga ko ci circonstance yu difficile ah yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana vraiment. Euh, am na solo maa ngi la koy jaalewaat yow tamit parce que yow moom maa ngi yow benn lañ rek macha allah yàlla na ko yàlla jégal moog bépp julli bu ne ci suuf bés man fi may ñëw ak yow tout droit rek mooy problème mu Luc Nicolaï defe naa ku ne dégg na problème bi ni mu meloon ñi ci waroon taxaw taxaw nañ ci ñi ci waroon wax wax nañ ci ba def tey ci veyu tabaski bi wala bi ñu ne la ko président de la république Macky gracier jégal ko euh, mbir moomu ndax mën nga ci ñëwaat parce que sa digganteeg Luc am na lu bëree bëri lu ngeen seq ci wàllum liggéey ak xarito waa dëgg la mbirum Luc Nicolaï moom yomb na lool euh, ñu wax ci parce que yaakaar naa ni décision de justice da ci amoon mooy condamnation condamnation bu amee nag ci mbir loolu euh, pour lu génn amul woon beneen pexe bu dul tey jii yaakaar naa ñu gracier ko wala boog ay liberté conditionnelle yu mel noonu mais am na ñu bëri ñu ma dégg ñuy ñuy kaas ci mbir mi euh, ay acteurs politiques. Euh, ñoo xamante ne peut-être neexu leen ñu ne jàpp nañ ñu ko Luc Nicolaï waruñu gracier mais xam nga président de la république bu ko neexee sax mu gracier euh, un terroriste ngeen baal ma ci affaire bi diis na mais maanaam loi permettre na ko mu gracier ku ko neex dès que condamnation bi nekk fi te euh, Luc Nicolaï nekkul koo xamante ne dafa def ñaar weer ñetti weer ci kaso bi yaakaar naa ni il a fait boo xoolee en tout et pour tout vingt trois mois ci kaso bi te boo xoolee peine buñ ko ñëkkoon tëj yaakaar naa deux ans de prison la woon après nag moo ko yokkoon appel yi moo ko moo ko yokkoon yóbbu ko quatre ans de de de prison mais boo xoolee tëdd na euh, cinq ans de prison sax mun nañu wax mais un an ak sursis quatre ans yi la ci waroon tëdd mais boo xoolee ci quatre ans yooyu mu waroon tëdd tëddoon na déjà vingt-trois mois boo ko boo ko boo ko boolewee te vingt 23 mois daanaka jege na lool peine bi mu waroon njëkk tëdd mooy peine 24 mois bi donc xam naa yooyoo tax président xool gis ni que ki nit ki kat acteur économique la am na lu muy lu muy représenté ci dëkk bi am na lu muy jot a def ci lu baax ci dëkk bi ba pare itam wax dëgg yàlla jot na tëdd lu bare bare mu mu gracier ko waaw. Hmm. yow bi nga déggee wala sax balaa ma ñu bi ngay dem dem nga fi Saint-Louis seeti ko bi ñu ko yóbbu tëjee Saint-Louis ak yu mel noonu bi nga demee ban nit nga gis parce que li souvent dañ ko xam ci nit ku am courage mais est-ce que affaire bi ébranlé woon na ko bi ñu ko fekkee foofu ci prison bi. ah non Luc c'est quelqu'un boo xamante ne man daf ma daf ma daf ma yéem. Luc honnêtement bi ma ko fekkee Saint-Louis j'ai été très surpris parce que xam nga man musuma woon dem maa ngi koy wax benn interview ak Lamine musuma woon dem kaso seeti nit ak yu mel noonu donc j'avais un problème ma ne nit ki ci yan condition laa koy fekkee ci ban état d'esprit laa koy fekkee mais bu ma ñëwee toog dama fël rek mu reetaan tooñ ma ne ma mais Ibrahima ana say bagage ma ne ko yan bagage mu ne man pour man dangay ngay ñëw jël sama place pour wan la nit kooku état d'esprit bu mu nekkoon vraiment da ñëw mu détendre la kaf ak yow foo ak yow reer yow la bu waree jeex rek dina jeex te yaakaar naa bu mu génnee kàddu boobu la ma nëkk wax ne ma Ibrahima waxoon naa la ni lii nattu la boo xamante ne suñu borom moom ma ko teg bu waree jeex rek dafay jeex waaw. jeex dafay jeex yàlla jeexal na ko yàlla na fa léeb doxe tàbbi géej mu dem ci neen activité am ndax loolu lay représenté ci Sénégal loolu la fi taxawee euh, bi mu génneeg léegi defe naa déggante ngeen de. waaw déggante nañ kay effectivement déggante nañ. ci ci ban façon ko déggaat. waaw toujours positif nu mu nekkee woon ci biir noonu la nekkee ci biti Luc de ci biir bu mu fa nekkee malak rek la doon def tooñ kaf foore boo ko gisee ak même bu ngeen déggante ci téléphone parce que xam nga ni prison di nga la am ay temps boo xamante ni di nga ci mën a woo say xarit ak say mbokk waaye nag euh, bu mu génnee c'était la même état d'esprit macha allah euh, kaf foore gëm ni que jaar-jaar bi nga xamante ne la def ci waroon a jaar et euh, donc suñu borom vraiment moo ko tegoon natt yooyu teggi na ko grâce au président de la république donc ñu ciy sant yàlla parce que amul woon lenn dul ñaan président de la république tey jii mu mun a gracier Luc Nicolaï mu dellusiwaat ci ci ay mbokkam président de la république bu ko mayee loolu donc mun def lu dul sant yàlla ci. bi nga déggee nouvelle bi ban réaction nga amee. non kontaan kontaan parce que Babacar tamit euh, on est pas des on est des êtres humains te après tout ay jullit lañu tey boo amee nit ak coow lu muy bari bari ñu fi nekk di wax yëpp nit tey jii ku ci xamoon Luc Nicolaï dëgg-dëgg wala nga am loo sekk ak moom parce que nit boo ko xamee ngeen yàgg di ànd di di di di am lu ngeen di sekk ci cadre liggéey bu amee natt bu ko dal euh, donc yow di nga am lu la metti donc automatiquement bu ñu ko remettre en liberté da ngay sant yàlla parce que surtout que remise en liberté bi moom moo moom moo neex mooy du loo xamante ne justice la ak xëccoo ak yu mel noonu amu ci benn xëccoo président de la république moo ko gracier grâce nag mooy baal nañ ko ci ci ci côté justice bi maanaam peine bi moo doon tëdd euh, lañ ko par rapport à cela lañ ko gracier donc képp koo xamante ne vraiment euh, yaakaar naa ni xaritu Luc Nicolaï nga wala yaa ngi ci ak ci ci milieu làmb am nga ci satisfaction surtout que tey euh, yaakaar naa kenn yéenewul sa moromu jullit yenn yi surtout que tey nit ku nekk il a droit même bu fekkee tey moom moo def il a droit à une seconde chance te yaakaar naa ni prison du pour yàq nit prison pour defar nit la. tey mu mel ni kon nit ñi mën nañoo am euh, contentement ñaanal ko yàlla xam nga tey mu subun combat boo xam ne mooy combat royal Ama Baldé Modou Lô déggaat nañ tey ci ay xibaar kan yi démb réunion na ak stafam waxtaan ak ñoom pour am leneen lu mu indiwaat ci arène bi ndax lig ku ko xam-xam ko ci ay grande événement yu mag a mag Ama Baldé Modou Lo waxtaan ngeen ci staff bi est-ce que dem biñ dajee am nga ay écho ci waxtaan wi wala mën nga koo dëgër wala déet waaw staff bi effectivement daje nañ man nag bokkuma ci staff bi attention man collaborateur laa boo xamante ne. collaborateur yoo xam ne dañuy bokk ci parce que ni ngeen di collaborer moom am na luñ ci xam ñun wala. waaw waaw waaw mais xam nga staff staff mooy Luc Nicolaï Co man bokkuma Luc Nicolaï Co man sama saa sama boo xam ne damay collaborer ak plusieurs promoteurs tey bu ma gisee daanaka bu ma gisee yeneen promoteurs yi sax da ngay da ngay da ngay kii parce que vraiment ñun làmb lañ fi nekkal mais ñu ko Nicolaï nekk na koo xamante ne dañuy collaborer ci lu bëri macha allah ci ci mbir effectivement am naa confirmation ni que staff bi waxtaan nañ te staff bu njëkk ba mooy ñëwaat waaw staff staff bu njëkk ba. bu mooy ñan. ay 2010 2011 Balla Gaye 2 Modou Lo bu njëkk ba. waaw ñu nekkoon ci ginnaaw di ci liggéey staff. organisé woon loolu. woon loolu ba defoon ay événement yu mag a mag a mag staff bi nga xamante ne moom moo doon révélo Sénégalais yi man bokkoon naa ci ñu mu doon révélo yow bokkoon ci doon révélo ci Balla Gaye 2 Modou Lo ci spectacle yu ci doon am yooyu yëpp staff boobu moom moo moom la Luc Nicolaï yaakaar naa di indiwaat. Modou Lo Ama Modou Lo Ama Baldé waaw effectivement combat boo xamante ne ñaari mbër yi yaakaar naa si signé nañu ba pare donc dara desul lu dul euh, ñu ñaan yàlla Covid bi jóge fi bu fi Covid pour pour lig mun koo tëgg dara terewu ko tëgg fu mu toll nii waaw Covid bi kese kese kese moo mooy mooy cas de force majeure bi nga xamante ne amul benn événement sportif bi am fu mu toll nii ci ci réew mi. Euh, ma profité waale lancé waale benn appel gis nga ni UFC ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi combattre mooy ñuy def MMA ñu ngi combattre football bi ci Europe bi gars yi ngi football ci lan lañ ko yaakaaree ci Dura Télé Dura lañ ko yaakaaree pour di fonctionner loo seen ay sport donc ñun Sénégal loolu mooy woon pay per view bu ñu fi indi nit ñi war nañ ci mun a jàppale parce que nit ñi buñ ci buñ ñu ci jàppale woon buñ ñu ci gën a jàppale book autorités yi gën ñu ci jàppale opérateur euh, yi nga xamante ne téléphones yi comme ni nga ko waxee ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor réseau bi gën ñu ci jàppale yaakaar naa ni système droit télé boobu dinañ ko teg sur place donc fu mu toll nii ku ci nekk mën nga toog sa kër di seetaan benn Balla Gaye 2 Gris Bordeaux seetaan Boy Niang Tapha te stade bi du am nit mais yaakaar naa ni mu am ay revenus yoo xamante ni promoteur dina ci mën a génn mbër yi mun ci génn. mais bés làmb ak ni mu mel ba amul nit ci ginnaaw est ak nu mel tey jii football xoolal football kan moo xalaatoon ni tey jii Messi dina football ay ñaata match déjà équipe de football rek bu ñu ko suspendroon suspension rek. maanaam des fois non suspension des fois ñu suspendre ses supporters huis clos mais ñëppay mer ñëppay découragé ci huis clos boobu noonu mais maa ne léegi lépp la. NBA sax reprendre na nekk huis clos fu ñu jëm ak Covid bi dañuy ñaan yàlla mu jeex tey tey tey wala mu jeex ci semaine bi mais Covid bi bu continuer ñun ñu war a dund Covid bi pendant très longtemps mais tubaab yi ñoom ils ont rapidement trouvé des solutions ci football ils ont rapidement trouvé des solutions ci basket ils ont rapidement trouvé des solutions ci seen ay combat catch ak yu mel noonu mooy UFC ak yeneen ak yeneen mais ñun làmb ji amuñu beneen solution lu dul suñu stade fees de. ah yow est-ce que am nga loolu. mu neex sénégalais yi mu na sénégalais yi mooy pay per view bi mooy pay per view bi ñun gars yi dañuy tooñ de da ngeen bëgg rey làmb ji bëggoo leen làmb man ku ma gën a. am na lay jiñ lool de. man ku ma gën a bëgg làmb man ku ma xam dëgg dëgg dëgg xam bu ma juddoo ba léegi làmb rek laay nooyee làmb rek laa bëgg du leneen lu dul làmb pay bi defuñu ko pour lekk xaalis liggéey la nag liggéey la nag ñu ci am na weccet nag buzz ah dégg naa de. non nga. dama ko dégg ñu ne am na weccet. waaw dëgg la effectivement liggéey la boo xamante ne suñu sutura mais avant tout avant tout yaakaar naa pay per view bi pour luy doxal làmb la avant tout te gis ngeen Covid bi rek rek rek rek rek mooy firnde bu ci gën a leer mooy tey àdduna lépp ngi fonctionné UFC ngi fonctionné football la ngi fonctionné basket ngi fonctionné NBA ubbiwaat na parce que rassemblement yi la ñuy bañ dañuy tester joueurs yi mais tey bu ñu testé woon mbër yi testé accompagnant yi ñu ne noonu seen test yi negatif na ñu organiser combat yi. jàllale ko ci ci ci Donatele bi. est-ce que contacté nga ci promoteur. non non loolu c'est prématuré promoteur boo ko waxal fu mu toll nii mu ciy bëtu la promoteur fu mu toll nii naa seet si Thialis. <laughs> wax ceeg Balla Gaye Tapha Tine. non naa Balla Gaye Tapha Tine ak Boy Niang. naa seet si Thialis ne ko Tapha Tine Boy Niang na nga ko def pay pour view yooyu mu ne ma Ibrahima yow est-ce que da ngaa tux wala lan lan moo la dal <laughs> loolu la ma nar a wax. mais est-ce que tamit am na solo li nga wax parce que tamit yaakaar naa ne ku amut yaay olof ne da ngay ndàmp maam. yaa ngi dégg appel bu may lancé rek pour sénégalais gën ci xalaat peut-être nag affaire yi jumtukaay moo moo moo ñëwagul nekk 100 pour cent gis nañ TNT baa ngi ciy jàppale au niveau local internet bi tamit gis ngeen ni tamit dañ wax rek te yàlla tax internet baa ngi évoluer connexion yaa ngi a stable connexion yaa ngi gën a baax ñu ngi multiplier tamit ay partenariat ak opérateurs yi parce que lu lay firndeel loolu mooy boo xoolee pay-per-view six événement la ñaari woon coow am ay difficulté mooy Balla Boy Niang Modou xoolee yooyu yëpp macha allah déggoo ci coow lu bari kenn wanewu ko télé te amateurs yi seetaan ci ñu ci ëpp ci sans problème vraiment donc ay am naa yaakaar ni fii ak benn at ñaari at ñu war a mun dem ba léegi pay per view am doole boo xamante ne moom mooy ëpp doole wu bi di génne boobaa dinañ mun a xalaat def ay combat huis clos mais yàlla buñ ci yegg yàlla buñ ci yegg yàlla na corona bi jóge fi mais lii yëpp ay ay ay xalaat la yoo xamante ne ñun euh, sénégalais yi war nañ ci bàyyi xel. bés nu muy defee pay-per-view bi ak promoteurs yi cinquante pour cent quarante pour cent wala trente pour cent. waaw cinq pour cent laay ñoom ñu jël quatre vingt quinze pour cent. bés li nga wax doyut waat cinq <laughs> ay. des fois sax ma jël un pour cent ñoom ñu jël quatre vingt dix neuf pour cent. pour cent bés di. ah waaw mais bëgg làmb ji dox rek. noonu nga koy doxalee c'est sûr. ah Babacar yi da maa posé question ba pare di douter ci sama waaw des fois da koy laaj waaw parce que pour bëgg a dimbali làmb rek waaw. amagoo ci concurrence fii ci dëkk bi. ah mu ngi commencé am mu ngi commencé am. comme ñam. am na ci ay nit yoo xamante ne ñu ngi jéem pay per mais yàlla dogal na nag kenn ñu ci ñu ko jéem ñëpp antuwul nag wax dëgg yàlla am na ci ñenn ñu ko annoncé woon jotuñu ko def am na ci ñenn ñoo xamante demoon nañ ba ca bés ba finalement seet si am na ci ñenn ñoo xamante ne bon bëri na nit ku nekk looy liggéey dina ci am ay concurrence. loolu maanaam dafa jafe wala. yombul wax dëgg yàlla maa ngi lay tooñ naan la un pour cent mais xam nga loolu xel xalaatu ko. kay nag dana doy waar. mais parce que dafa dafa bëri ay ay ay xaalis bu ci intervenir bëri ay moyens technique yu mu laaj piratage bi rek dama lay jox exemple man damay jënd ak sama téléphone bi jël sama beneen téléphone di filmer donc boobaa dafa nekk leen loo xam ne di ko filmer ci Facebook YouTube donc boo amul ay jumtukaay yu la mën a permettre tey ji nga bloqué. maanaam tous les flux pirates ci Facebook ci YouTube mais doo jaay parce que pay per view quatre vingt dix pour cent ñuy jënd wala quatre vingt quinze pour cent ñuy jënd ci bés ba la jënd ci combat bi bu muy jege si dañu jënd mais bu combat bi di jege si ñu koy seetaan ci seen ay Facebook YouTube mais duñ jënd loolu moo tax il faut avoir les moyens de bloquer les pirates loolu dafa cher. il faut avoir les moyens parce que tey premier combat bi amoon nañ jafe-jafe donc yow da ngay doubler tout le temps donc dafa bëri ay détails ci biir yoo xamante ni dafay laaj nga investir sa xaalis ñun dem nañ ba ci biir pay per view man su ma la waxee benn affaire di nga ma gëm billaay walaay taalaay am na pay per view ñu def dañu perte xaalis parce que dañuy jël ay motukaay technique yoo xamante ne pour satisfaire sénégalais yi pour bañ a am problème ba nga xamante ne lu ñuy dépensé ci technique bi day ëpp lu ñuy gagné ci ay ci ci njaay parce que ñun gisuñu dara lu mu baax bu ñu leeree ni tey dañuy def benn pay boo xam day am ay jafe duñ ko def donc pay per view lu jafe-jafe la mais nit ñi mënuñ ko comprendre Babacar tey jii ñu bëri jàpp nañ ni que Babacar lu muy def dafa yomb téye micro posé ay question mais koo ci joxoon micro mu jàkkaarloo commencé bi commencé kot koti bat bati kenn du xam lu muy wax. bés su ñu jeexale mooy bés Leewtoo TV Lutte TV BP Actu bés pro est-ce que bés xalaat na ëllëg nag gën a yokk affaire yi télévision rajo ak yeneen. waa mais yow tey Babacar waxuma ni xalaatuma ko mais da gis léegi télévision yaa ngi daw di dugg si ci digital bi. wala yéen gisoo leen loolu. waaw ñoom ñëpp am digital defe naa. ñoom léegi ñoom ñëpp gis nañ ni que télévision yi doxatul yow boo da ngay toog ay kilifa yu yor ay télé ñu naan la télé day dee lu leer ni mi lu ma lay wax caaxaanu ma de dama yor dama toog ay kilifa yoo xamante ne ñu ngi yor ay télé yu mag ci réew mi représenté ci lu lu kawe ñu ne la télé dafay dee. télé comme télé dafay dee ñoom ñëpp boo xoolee site internet télévision yëpp léegi ñu ngi dugg ci digital bi ñun kay bàyyi ñu asseoir suñu position. ci digital bi ba noppi soog a wax ay waxu télé ndax fu mu toll digital moo xew yow gars yi lu lay gis dañ koo gis gars ñeneen ñi ah fu mu toll ni fa yow ànd naa ak yow di te gis naa sañse yi gars yi yaa ngi lay ñawal yaa ngi jot ay mandat Western Union yaa ngi daw. déet waay xam sa man lenn ma ni sama papa Bekaay Mbaye ak sama papa Malick Thiandoum. ay Lamine Samba sa téléphone nu muy sonné sa seen téléphone. Eh, ñooñu ay général la ñu maanaam góob yi rek la ñu bu ndaw laa ay généraux lañu. ñoom une heure de temps la am par de semaine. ay une heure de temps la ñu am par semaine te yow mu toll yow bu la neexee 24 heures sur 24 ngay diffuser yaa gën a xew de te ñoom yenn saa mu am màggal ñaan ñu ko yàlla bu dëj amee ñu dàq seen émission yi <laughs> màggal yeeg yooyu yëpp ñu bloqué seen émission yi Père Omez a ngi nii toog laaj ko ñaata yoon la <laughs> ñaata yoon lañu émission yi bloqué ci seen télé yeeg yooyu noonu. yow da ngay diffuser 24 heures sur 24. Ah, mais sant yàlla mais lépp yow la ah. après encore une fois. non non non loolu nit ki moom destin moom rek la am kenn mënu koo tere atteindre des maanaam fu mu war a jaar kenn mënu ko koo tere jaar yàlla bu lu mu tudd ci yow di nga jaar ci ay loxo yu bëri mais fi nga war a yegg da nga fay yegg incha allah. am na solo mais ki koy xam di ko nangu di ko feeñal tamit ko kenn du moom te yow loolu nga def moo tax ñu naan la lépp mbir mi yëpp sunu borom la mais dafa am fu mu koy jaarale pour man parce que ku dem rek am na loxo la gis xam ne di ko wax du bëri wax mais wax dëgg la te yàlla tax dafay am ku nga xam ne moo lay gis parce que ba Babacar yi def ay de presse ci marché yi ci place fëgg jaay yi nga nekk ba Canada di ko déglu ah ne ko day ma ko yónnee mu di la ko yónnee nga ñëw fii nga yóbbu ko Lutte TV non loolu bu ko Babacar fàttee du gor loolu moo tax ma koy fàttali di ko fàttaliwaat parce que ànd dëgg dafa am solo ànd te yàlla tax dafa am solo parce que loolu lañ seq te ba tey dafa gën a rafet quoi. am na solo loolu Babacar boo doon mbër daal doo daanu. <laughs>